asalaamaaleykum suñu waa mbokk internet yi suñu Sunugal 24 dal leen jàmb ci seen beneen plateau tey nag ki ñu seet si mu nekk benn jeune dame boo xamante ne temps yi mu ngi def buzz macha allah à travers clip bi mu génnee mais balaa ñoo xuus ci waxtaan bi dañ koy bàyyi moom mu présenté wu ak suñu mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum Yana maa ngi lay euh, nuyu di euh, kontaan si fekk si bi ngeen ma fekk si sama kër donc di nuyu euh, internet yi may seetaan ak waa sunu sunu Sunugal 24. alors Adam ñu bëggoon laajte kan mooy Adam Sène alors Adam seen nag c'est une jeune euh, artiste chanteuse sénégalaise daal di euh, je suis originaire de Saint-Louis Ndar Géej donc euh, nekk di def musique depuis depuis longtemps mais depuis on va dire trois ans la commencé di di def des des des des choses professionnelles ba tax gars commencé ma si xàmmee alors des choses professionnelles ñu ràññee ko trop ci sa à travers clip yi ngay def et tout ñu bëggoon a laajte ndax yow da ngaa jàng euh, musique ou bien c'est un don. alors je peux dire que enfin je suis passionnée de musique depuis toujours je, je peux dire que c'est un don fekkee mën ko <laughs> voilà donc jànguma ko autodidacte laa si donc euh, mu sa nekk melo mélomane tàmm déglu musique depuis bi ma nekkee xale ba léegi après ma dem ba mën woy bi nekk si man te teyuma ko sax après bi ma demee nag ba ba ba nekk Mouskalaf ma décidé def ko sama carrière. nga def ko sa carrière léegi dañuy gis ni ñu bëri à leur seen parents yi mën naa wax ne dañuy d'accord ak ñoom soit duñu d'accord ak ñoom léegi yow ma lay laajte ndax euh, est-ce que parents yi nangu woon nañu nga def musique. alors li tax ma wax dama xaar ba nekk Mouskalaf c'est parce que évidemment bi ma nekkee xale euh, samay parents bàyyiwuñ ma woon euh, ma woy parce que xam nga nit ñi ñu bëri dañuy jàpp ne fekkee jógewoo si famille griotte waru woy donc ma nekk xale nekk doomu jàngalekat lu ñu ma santoon mooy ma jàng donc j'ai été obligée ma jàng def sama yeggale sama cursus ba université ba am sama maitrise ba pare ba dem liggéeyi di jàngale soo gaa commencé am sañ-sañ pour def musique voilà ah, macha allah parce que c'est pas c'est pas facile que parent yi ñu nangu seen doom yi ñu dem defi ji musique walla benn affaire dañuy bëgg ñuy concentré wu ci seen ay études est-ce que yow métti métti genre yomboon na pour nga nga convaincre parent yi ne danga bëgg musique bi en fait. mais je peux dire que musuma leen convaincre ah musuñu d'accord parfois dama daan laqatu di wéyu yi ma daan def ci école yeeg affaire yooyu léegi di bi ma demee nag ba jàng sama jàng ba pare. ba dem liggéey maanaam liñ ma santoon yëpp def naa ko man leen déglu leen ma nag lii laa bëgg donc ngir yàlla jàppale leen ma si donc boobu la ñuy sooga d'accord bi ñu demee ba gis ne même ñoom seen ay xarit su ma defee dara sax si réseaux sociaux yi seen xarit yooyu dañ koy partagé après nag si la ñuy ne ah kon kii li muy def noonu la gis tamit nit ñi ni ñuy commencé di ma encouragé ak affaire yooyu ñuy ñu commencé di wax samay wax euh, si la parce que xam nañ ni da nga koo bëgg et tout mën nga ñëw rencontre euh, raconter tes débuts ba ngay soog a dugg ci musique lan moo la lan moo la gën a alors euh, je peux dire que je chante depuis toujours wax dëgg yàlla donc mu euh, nekkee xale laa commencé def Saint-Louis xam nga euh, di di di wéy si école yi di ànd ak ay rappeurs et tout donc ba ma ñëwee nag ba décidé def ko sama carrière ñëw Dakar wéykat bu ma dégg dina xam li may wax affaire yi metti na trop trop voilà parce que voilà ça demande beaucoup de de moyens pour que nga mën a def say production mun a def say say enregistrer say son mun a def say vidéo et li nga xam ne Euh, marqué na ma bi ma ñëwee parce que dama yaakaaroon soo ñëwee soo amee talent day yomb da ñëw rek affaire yi dem mais non voilà foog nga fekkee amoo chance dëgg-dëgg foog nga yow nga góorgóorlu sa bopp. te loolu moo ci gën a am solo nga góor góorgóorlu sa bopp pour mën a marqué say preuve gis nañ ci clip yi nga génnee yi ñi nga yi nga xamante ne moo gën a marqué sax laay wax sénégalais nànk-nànk ci la bokk loolu nan nga ko dundee. waaw ndànk-ndànk ku ko déglu dina xam ne c'est reprise de Despacito. donc Despacito bi mu génnee woon en janvier 2017 dafa am succès planétaire léegi ñëpp nekk di ko di ko reprendre à travers le monde et dans toutes les langues après ma am idée def ko en en wolof donc voilà ma traduire ko euh, première partie bi en wolof deuxième partie bi mu bàyyi ko espagnol parce que aussi prof espagnol laa woon donc voilà c'était pas très difficile pour moi ma def lool. Mhm. Euh, wax nga ñu ne prof euh, espagnol nga woon est-ce que bés mus nga am jafe-jafe ci côté jàngale bi ak aussi wéy. Euh, waaw déjà mm, bi ma décidé commencé woy bi fii ñëw Dakar di ko commencé woy fekk na dama njëkkoon démissionné fi ma doon jàngale muy euh, Tataguine maa ngi nuyu waa Tataguine fekkee ñu may seetaan après bi ma ñëwee Dakar nag ma gis ne musique bi dafa dafa metti si la obligé demaat dugg si euh, privé bi di jàngale léegi bi ma demee di jàngale sama premier jour la ma élèves yi xam dama ñëw rek fekk na génne naa Despacito bi ba pare dama ñëw rek <laughs> ne ma madame yow chanteuse nga non affaire yi commence ñu commencé ko jàllante mais bon j'ai jamais eu de problème par rapport à ça parce que euh, man ak ñoom ñoo xaw a maase man ak élèves yi quand même Euh, daan nañ ma comprendre musuma nekk tamit genre prof bi nga xam ne da ngay ñàngal xam nga di jéem a comme comme la plupart des dames ce font mm-hmm. parce que pour ñoom suñu ñàngalu les gars yi dañ leen di yàpp donc man j'ai jamais fait ça donc damay ñëw rek voilà nekk ak ñoom gars yi wan leen ne seen grande sœur là et le le courant est passé sans problème donc noonu lañ def ba ba may décider arrêté waat pour euh, me consacrer à la musique euh, quel plaisir ban plaisir la lay def yow tey nga romb dégg sa woy Despacito maanaam nànk-nànk ak yeneen ak yeneen. Euh, ça fait plaisir wax dëgg yàlla mos sama ma daal ma dem ba marché fekk euh, ay atelier tailleur ñu teg ko <laughs> ma kontaan ma ñëw ba si moom naa leen est-ce que xam ngeen ne wéy bi man maa ko moom <laughs> affaire yooyu sama wéy la genre yooyu ñu naan ma kii fi mu jóge man leen da may fay di leen tooñ après au début gëmuñ ma woon mais ma échangé ak ñoom xam nga ay WhatsApp Facebook ba léegi ñoom ñëpp samay gaañal lañ donc voilà ça fait un très grand plaisir da fier <laughs> man la voilà léegi wala tamit ñu teg ko si télé yi comme man moom li muy seetaan télé bariwul parfois da nga gis gars yi dañ koy capture wala filmer ko envoyé ma ko te loolu moom tamit daf may neex vraiment. Mhm. loolu mbégte la parce que ku ci nekk boo sañoon euh, foo toll ñu lay déglu et aussi di la gis gis nañ ne temps yi yaa ngi def buzz macha allah waa kay <laughs> macha allah nga génnee dem dem benn. reprise benn kii woy bu Youssou Ndour boo xamante ne da nga ko reprendre euh, mun nañu wax lan moo tax nga def ko. alors lu tax nag ma reprendre dem dem dëgg la bëgg naa Youssou Ndour trop wax dëgg yàlla mu ko fan moom loolu ñëpp xam nañ ko mais hasard la. dama toog nii rek c'était pendant le ramadan benn beatmaker bu nekk bu dëkk Fatick bu ñu naan Black King xaw ma ko sax wax dëgg yàlla mu bind ma en inbox Instagram envoyé ma beat bi comme heureusement damay lire message yëpp man euh, voilà ma ubbi gis ko après mu nekk benn lien YouTube ma dem déglu ko mu nekk euh, dem dem après voilà j'étais surprise par la la qualité de de l'instrumental après ma koy tooñ rek ma ne ko waa jox ma bii bokk ma def promo bi comme ça mu ne ma amul benn problème jëlal donc c'est c'est comme ça ma ma ma reprendre ko te il faut aussi savoir que comme Saint-Louisienne laa te clip bi Saint-Louis lañ ko defee woon la ko Youssou Ndour defee woon euh, c'était symbolique ma ne naa ko defaat en tant que Saint-Louisienne pour lui rendre hommage vraiment. Ah, macha allah euh, est-ce que ba clip bi génnee par exemple euh, Youssou Ndour déggante nga ak moom wala gisante nga. non déggantewu ma ak moom gisantewu ma ak moom te il faut ma leeral benn affaire du loolu laa si jublu woon en fait man dama dama dama bëgg musique dama koy def pour le plaisir mais il faut savoir que tamit avant ma koy def j'ai contacté son staff pour demander l'autorisation parce que léegi voilà ma tëb tëb rek voilà jël yëfu jàmbur te te laajtewu ma xam mun naa ko def ay Despacito ak ay yeneen ñooñu xamuñu fii Sénégal c'est un tout petit pays avec un gis mais comme Youssou Ndour fii la nekk donc j'ai contacté son staff ak euh, ay mbokkam ma demandé autorisation ba jox ma ko may soog a osé génne son bi vraiment voilà. et c'est ce qui est plus sûr parce que comme li nga wax rek Sénégal la ñu nekk te kenn xamul mun nañu xam ndax Adam euh, am na label bu mu nekk et tout. alors euh, jusque là euh, amaguma label de production mais maa ngi ci benn label bu ñu naan Kayzit Kayzit Sénégal. qui est un label, euh, international, parce que voilà, il est présent un peu partout, avec Canada, États-Unis, France, un peu partout en Afrique. Et Bignou et Sénégal, voilà, comme vous le savez, signé un beurre en production, en distribution, en édition. Maintenant, récemment, ils m'ont signé en édition et en distribution. Ça veut dire que maintenant, su ma defatee musique comme ni ma daan def avant dugal ko YouTube rek wala di ko envoyé sama gars yi par WhatsApp léegi loolu amatul koy dugal si ko bëgg déglu dem déglu ko foofu wala ñi ko bëgg téléchargé dem téléchargé ko foofu ko bëgg jënd aussi pour jàppale ma <laughs> dem foofu voilà parce que comme amu producteur damay soxla di jaay sama musique mu may andil ay fonds pour que mooy ma mën a continuer ma mën a avancer. Mhm. Euh, ci foofu la ñuy des parce que récemment gis nañ nga def benn interview ak suñu benn naataango ngay wax ne que producteurs yi suma juumul nañ leen bàyyi di leen utiliser comme ay objet sexuel mën nañu xam ndax loolu da nga ko dafa nekk loo xamante ne da nga koo dund wala loo xamante ne constat alors constat la ak loo xam ne tamit euh, dund naa ko voilà du ma nekk di fi tudd kenn parce que xam naa loolu la ñuy yàkkamti pour affaire bi nekk scandale xam nga Sénégal yooyu rek la ñuy toppatoo léegi euh, mais mënoon naa ko bañ a wax. mais soo ko waxul du fi du fi mës a génn parce que bi ma defee sortie boobu ba pare euh, je vous le jure hein, des chanteuses m'ont contacté pour me féliciter si li mu wax loolu ñu ne voilà il faut au moins kenn wax ko euh, am na ñu naan ma tamit soo ko waxee ba duñ la créer est-ce que di nga amati producteur wala affaire yooyu parce que genre sooy wax yooyu dañ lay dañ lay classé dañ lay boycotté man leen ba mu mu nekk ni si man la waroon jaar ñu boycotté ma après ñu nekk si suuf suñu ñëwee kenn dootu leen defati loolu comme ça affaire bi a baax pour ñoom voilà il faut que quelqu'un se sacrifie. c'est pour nga jàppale sa mbokk jigéen yi nga xamante ne ñu ngi ci milieu bi et tout léegi ñooñu lan nga leen di wax tey parce que tey bu ñu déggee ne li nga wax dëgg la anaam am na ñoo xamante ne du ñu oser wax ko léegi ñooñu pour ñu am courage. Euh, ma leen di wax juste rek ñu ñu gën a am seen fulla bopp am seen dignité gëm seen bopp xam ne bu buñ buñ yàkkamti xam ne fekkee am nañ talent dëgg-dëgg sa peut marcher honnêtement donc voilà nañ nañ euh, gën a def comme léegi am ni ma ko grand pape Diouf doon waxee l'autre jour bi ñu bokkeen plateau si fête de la musique nee ma léegi soxlaatoo sax am producteur puisque léegi ku nekk am nga sa télé sa poche muy téléphone donc yow fekk soo demee am sa xaalis tuuti dama def say euh, comment on appelle ça enregistrer say son soo mënee ñu jàppaleen nga def clip nga def clip après nga def lépp si say réseaux sociaux waaw duma la dagg sax gis nañ ne am nga doole bu baax ci réseaux sociaux yi lu ci mel ni Facebook ci ay groupe yu bëri yow xam nga lu ci mel ni ñoom waa non stress nga xamante ne ñu ngi lay jàppale bu baax di leen nuyu au passage alors di leen remercier rek comme d'habitude euh, voilà parce que depuis le début ñoom ñoo si jàpp su loon ñoom kenn du ma xam sax voilà parce que ba léegi affaire bi des na mais le tuuti le comme je parle que les gens voilà me me connaissent ñoom c'est grâce à eux te lu si ni euh, waa euh, si ñoom la commencé ah depuis Despacito voilà parce que même avant Despacito sax dama naan def ay wuyu ndaw di ko dugal si euh, groupe bi ñoom ñoo ma gën parce que faut savoir que man je chante depuis après nag ba ma ñëwaatee miinanteeg ñoom di dugal euh, vidéo yi parfois léegi nag euh, ñoom ñu ma poussé xam nga di ma di ma jaay di ma jaay ba ma ne ah war naa ko def carrière donc voilà c'est grâce à eux et maa ngi leen di remercier si loolu bu baax. comme ni nga ko waxee parce que nit moom boo nekkee ci dara dinga nga soxla ñoo xamante ne dañuy nekk sa ginnaaw te loolu c'est à saluer. gis nañ ne saison une bu belle-mère yaa ko wëy mu nekk lu macha allah te deuxième saison bi nag euh, gisuñu la loolu nu mu fa demee. <laughs> waaw euh, première saison bi bi muy am production bi dañ ma seet si euh, pour ma defal leen générique bi parce que xam nga j'étais une chanteuse pas très connue donc voilà ñu ñëw ne ma ñoom tamit amuñu xaalis dañuy soog a commencé nee nañ jàppalante après su affaire yi marché ku nekk di nga si gis sa bopp ndeysaan après ñu yóbbu ma studio xam nga fay fay instrumental bi Bril Fight for defar ko ma ñëw bind sama son defar mélodie et tout dem dugal ko après le le euh, on appelle ça deal moo doon que man maay moom son bi donc noonu la demee après euh, mais bi affaire bi marché parce que macha allah parce que gis ay épisodes yi xam ne dem na ba ay 800000 vues ay 900000 vues donc je me dis que marché na mais ba <laughs> ba léegi gisuma si sama wàll <laughs> ba sànq ba léegi donc euh, bi deuxième saison bi génnee production bi ñëwaat na parce que je pense nañ pour jël ma man leen non. kenn fayuma première saison bi donc xalaatuma sax way deuxième bi comprendre surtout que voilà jéem naa leen contacter waxoon naa ak ñoom tout même clip bi sax clip belle maman man maa ko financé sama bopp donc donc après man leen bon non après mu ne ma waaw dina dina xool mais ba léegi déggaatuma ko après voilà ma toog léegi ak clip bu bi comme li nga wax yow yaa ko financé sa bopp mhm. est-ce que tamit comme li nga wax yaa ngi wax expliquer sànq ne que producteur ñu arrêté mhm. ci loolu mhm. mais jàpp jàppoo ne instant bii nii ñoom li nga xamante ne ñu ngi koy def parce que est-ce que signé nga contrat ak ñoom aussi. Euh, exactement c'est ça voilà parce que am na ku ma ko reproché sax benn sa benn naataango nee na bàyyi leen contrat verbal yi ngeen di joxe effectivement parce que comme dafa am ñu ma xamoon si ñoom ñoo xam ne sax no stress lañ bokk loolu moo ma gën a rey. parce que xam nga ñun entre ñun waa non stress fekkee bokk nga ci groupe bi gis nga on est comme une famille dañuy demalante et tout donc bi ñu ñëwee wax ma dama ne amul benn problème voilà benn genre contrat moral la woon rek waxante nañ ni donc voilà euh, ma jàppoon ne dinañ tenir seen promesse mais mu mujjul am mais euh, comme on dit dootuma dalati <laughs> donc voilà. mais est-ce que yaa ngi leen di topp ci loolu wala. da leen a bàyyi. non pare naa si mais leen daal xam naa que léegi euh, je suis comment on appelle ça signé naa contrat d'édition ak waa mu protéger donc euh, lu mel noonu dootuma mënati dal parce que leen lu may def damay damay signé te nu mu mënti demee damay jël samay droit donc voilà même woyu jàmbur yi may reprendre su ma ko defee ñoom fekk dañu am ay droit donc man fi ñu ma inscrire muy SACEM en France ñooñu dañu jël droit yi ñooñu moom jox leen donc noonu la demee donc fii kenn mënatul sàcc yi fu jàmbur fekkee la personne elle est donc day jot ay droit am forcément pour mu nekk mbir bu leer parce que comme li ma wax sànq rek Sénégal kenn xamul euh, ci lépp li fi xew ñu bëggoon a xam yow sa relation ak euh, artistes yi est-ce que am nga yenn relation yi ah oui oui macha allah donc euh, surtout jigéen yi euh, muy euh, xale yi parce que je vais pas dire samay morom parce que maa mag xam nga damay niiru xale <laughs> sama lex yi koo gis danga may teg bébé alors que nekkuma xale noonu donc sama rakk yi ku si dem ni comme ku si mel ni ay OMG ay Abiba ay Myriam bu Thiès donc ñoom ñëpp samay gan lañ ba si Nafina ay Fili Soumaré ñoom ñëpp si góor ñi aussi mën naa wax ñu si mel ni ay Edmo ay Bril Fight Fort donc voilà ñoom ñëpp macha allah samay gan lañ ay donc voilà ñun ñëpp voilà xam nañ ni ñoo bokk li ñu bëgg et euh, même fekkee concurrence day am parce que du si ñàkk il faut être sincère aussi concurrence saine la wax dëgg yàlla kenn jéemul yàqal sa morom respect bi mu ngi fii donc voilà alhamdulilah est-ce que tey yow rêve nga ci ñoom ñooñu nga wëy ak kenn. mais bien sûr amul benn problème dañ parfois dañ koy fawantoo sax dañ koy wax mais su jotee yomb incha allah donc voilà parce que ku nekk da am say say projet te say projet muy prioritaire donc voilà su ma si suñ suñu demee ba ku nekk xajal sama morom rek après voilà ñu defandoo ko incha allah. incha allah mën nañu xam Adam Sène kan mooy artiste am fii ci Sénégal. ci Sénégal euh, waaw nag bëri naa bëri naa wax dëgg yàlla ay ay artistes euh, vraiment euh, ku si mel ni commencé ko si Youssou Viviane Coumba Gawlo donc man ñi quoi ñi nga xam ne voilà vraiment jox nañ ma envie ma nekk ma nekk voilà woykat bi ma nekk tey. Mhm. mën nañu xam Adam Sène par exemple ci projet yi nga nekk parce que mënul ñàkk surtout instant bii nii. ñu wax ko yaa ngi bës macha allah ci dem-dem. waaw ah, projet bi ma am mooy li may wax depuis 2017 bi ma ñëwee ba léegi ku ma laaj ma ne la waaye maa ngi préparé sama album mais bon album dafa cher nekkete donc maa ngi siy wutum koppar bi incha allah su ñëwee su xaalis bi ñëwee rek voilà ma def benn album bu dope <laughs> professionnel <laughs> donc voilà bu ànd ak ay vidéo yu toj puisque loolu moo xew léegi incha allah. yu toj incha allah yow est-ce que da ngay viser ay maison de production wala. Euh, ba ouais pourquoi pas ba déjà yu yu mag yi fi nekk ah donc euh, ay ay maison de disque nag euh, internationale voilà parce que je suis quelqu'un de très euh, ambitieux donc su doon sama sago su ma demee ba si kanam ak kanam voilà pourquoi pas Kaysit c'est une grande maison de, de production ah donc ay yu mel ni ay Universal ay Sony voilà yu mel noonu yàlla baax na donc euh, yàkkamtiwuma di gën a liggéey rek di leen gën a prouver mën naa bokk si yooyu incha allah. incha allah mën nga ko ndax baat bi neex na trop te mën nga li ngay def euh, Adam Sène une jeune femme mariée macha allah euh, nan ngay allier mariage bi ak musique bi est-ce que c'est facile. waaw c'est très facile. parce que sama jëkkër mooy sama premier supporter donc voilà bi may xam fekk na déjà maa ngi woy donc euh, mosul lu nekk problème suñu diggante au contraire daf ma siy jàppale mais li gën a yombal affaire yi mooy on est pas on vit pas ensemble moom ma ngi France man maa ngi fii loolu moo waral sama déplacement yu bari donc voilà te euh, andil il est moderne comme man voilà sama sama morom la tout donc voilà vraiment il n'est pas macho il me comprend voilà c'est l'essentiel Ah, macha allah parce que loolu la tamit ndax nit moom boo nekkee ci dara surtout en étant une jeune femme mariée dëgg la nag milieu bi yombul surtout nga nekk ci jeune femme est-ce que doo ci am ay tenta tentation waaw ba loolu si si fépp la pas seulement <laughs> si si musique euh, même fekkoon sax maag moom dañu nekk tentation day am tout le temps après voilà yow yaay yow yaay xam sa bopp voilà te yaay doylu aussi soo xasee ba jël décision mariée voilà donc tu aimes la personne la personne t'aime après voilà donc voilà y a l'essentiel c'est d'être compréhensif et tout voilà alors Adam dañuy ñëwaat ci Dem Dem parce que moom moo nekk au instant bi nii macha allah gis nañ ñu bëri ñu ngi koy reprendre lan nga bëgg a wax rek benn message nga bëgg a lancer ci Dem Dem. Euh, waaw Dem Dem de ku ko déglu xam ne euh, voilà. c'est c'est c'est c'est c'est c'est une chanson euh, pleine de symboles xam nga de de de sens et donc euh, ak ni ñu nekkee woon ci contexte coronavirus bi kenn mënul dem ñëpp toog <laughs> donc voilà avant may def vidéo bii nii li ma njëkkoon xalaat mooy toog sama salle def benn vidéo boo xam ne nit ki day bëgg dem keneen kenaan ko doo dem toogal affaire yooyu ak confinement bi donc ñëpp ay bëgg a dem su ma ñëwaatee ci tamit si beneen euh, sens bi ma ko jëlee mooy dama dama nekk ci musique te dama bëgg avancer donc day am ay obstacles moo tax ma bëgg a tax fin bi ma naan bu ma téye faw ma dem yey bu ma kenn téye nañ ma bàyyi ma dem kenn du la téye soobee yàlla ndax baat bi neex na trop macha allah xam naa ni li ñu dese ci ay minutes bëreetul ñu lay laajte rek lan mooy sa mot de la fin. Ah, waaw di di kontaan rek te di leen remercier bu baax parce que yéen ngi jàpp ci combat bi xam nga tamit ngay génne te benn média ñëw la seet si la c'est pas c'est pas intéressant donc maa ngi leen di sant bu baax di wax ni sama gars yi ñu continuer jàppale bi ñu may jàppale te euh, xam ne incha allah ay projet yu nice euh, yu yu nice <laughs> ngi ñëw incha allah parce que ñu xaar ko. incha allah suñu mbokk internetu Sunugal 24 lii lañ leen indiloon tey Adam Sène une jeune chanteuse boo xamante ne macha allah kenn dootu ko présenter parce que elle a une belle voix ñu koy jaajëfal di leen jox dig daje incha allah ba beneen yoon.